mbokk yi bu ko defee rek ñu ngi leen nuyeeti bu baax a baax ah, fii ci Star TV ak Star FM radio ah, ba bu nekk ah, programme li ci kër gi di ci ànd ak seen waay Ababacar Cissé ak sëñ Moustapha Ndiaye ak kooku di Maimouna Diouf tey nag Maimouna jo loxo yee jàpp moo tax rek ba tey munta teew waaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax su ko defee nag ñu ngi nuyu ñoom Aliou ak suñ caméraman rek Star TV. mis saba ñu ngi koy nuyu baax a baax ñoom aliw ak ñoom Bas ak ñoom Samsidine ñi nga xam ne rek ñoo ñu jàppal ci liggéey bi ak suma tooma Ababacar mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen a nuyu waaye nag ci rajo bi ñu ngi nuyu bu baax a baax kooku di Mor Lamine Sagnang mi nga xam ne jamono ji moo ñu jàppale ci rajo bi sa FM radio 96 point 6 moom itam moo ñu nekkal foofu ak kon nag mbokk ñu ngi ñaanal aji jiitu yàlla yërëm leen xar leen àjjana fi ñu nekk yal na leen gënal fi ñu jógee di ñaanal ñi nga xam ne ñoom lay nattu tegu ak natt bu mënta nekk yenn yàlla teggi nattu yi mhm. ñi ngi ñaan ci àdduna bi yëpp jàmm di ñaan itam feebar bi ak bépp feebar feebar bu baax amut xañ ne bii bu ees la tiital nit ñi mhm. waaye nañ bàyyi xel ne amut bii feebar ak bële feebar yëpp mhm. benn la feebar yëpp yal na ko fi yàlla dàq incha allah wala bu mënte ñàkk ñëw itam foog ñun ñun yàlla ñu nattu ak feebar waaye nag bu feebar ñëwit yal yàlla oyofal ko te wér ko wéral ko incha ndax yàllaay wéral moom mi ko sàkk mbokk yi kon ñu ngi nuy ñëpp eh, ci réew mi ak ci bitim réew ak fu ñu waaye mën a dégloo programme ne ci kër gi àllarba bu nekk fukki waxtu yeeg benn ci suba ba fukki waxtu yi ak ñaar eh, seen a baaba kër si Cissé ak kooku di eh, sëñ Moustapha Ndiaye kon Moustapha gannaaw buñ nuyu askan gi yëpp yëpp yëpp mm-hmm. ci àdduna bi ñu ngi lay nuy bu baax a baax jërëjëf fay naa la donc la dine asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakatu Eh, gannaaw bu ñu sante yàlla julli si sanga bu teeda bi gërëm si ñaari waajur gërëm kilifa diine ak kilifa aaday fu waaye mënti nekk dañu jox la sa wàccu waay <laughs> comme ni ñu koy defee rek am kontaan am a mm-hmm. euh, xam ne mooy lu si kër gi euh, te lu si kër gi dafa nekk programme boo xam ne comme programme bi askan bi la mm-hmm. Mm-hmm. te saa yuñ ko euh, defee rek askan bi ku nekk gis sa bopp si li nga xam ne lu ñuy def mu nekk li nga xam ne foo ko naata fu nekk rek weesu na ko because uh, fu nekk laa de amee kool mm-hmm. mm-hmm. yi nga xam ne yu jógee si askan bi di apprécier nga xam ne lu ñooy def oncle Babacar a mm-hmm. Uh, mu jógee si nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdda si lali lopitaan ñi nga xam ne ñoo feebar tëdda si biir kër yi ñaan yàlla kun fa yàkkoon mi nga xam ne dara texu ko yàlla na leen yàlla uh, may seen boppa wér ak wérle bañ delluwaat seen sago ñi nga xam ne caabi daf leen féetee gannaaw yàlla génn leen génn leen fu ñu ne ba nga xam ne duñ defaat dara lu méngoo leen di nga xam ne euh, aji jiitu yooyu yàlla na suuf oyof seen kaw euh, Oncle Babacar di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp euh, mm. ndaxte comme ni ñu koy waxee sa mbagga te ñoom ñoo tiyee mm-hmm, mm-hmm. lu ñu fi teg lu nekk ne macha allah borom bi nga xam ne moom mooy borom thème nuyu bu baax a baax a ko xam ne rek yaa ñuy bàyyi xel jamono ñu toll nii mm-hmm, rawatina nag suñu caméraman caméraman nga xam ne macha allah ñoo nekk fi jinne caméraman yi ki nga xam ne mooy Lamine Mbengue mm-hmm. nga ñoo nekk contrôle room ñu a nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ah, soxna ñi nga xam ne mm-hmm. képp koo xam ne yaa ñuy bàyyi xel jamono ñu toll nii mm-hmm. ñu laa nuyu bu baax a baax ma delloo la kàddu gi macha alaaji ah, Moustapha Ndiaye comme ni nga ko waxee rek xam naa ne waxtu dem na léegi li ñu ñëw rek ñëw dugg ci thème bi muy ah, saa yu nekk nañ koy waxee Euh, programme euh, programme la boo xam ne nii neen ñi nga xam ne ñooy dund rek ci lu métti ak jafe-jafe te da mhm. xamuñ fu ñu koy waxee ak fu ñu koy jooyee mhm. euh, ñoo ñooy jox seen i problème ñu indi ko ci rajo bi ak ci télévision bi bu Star TV mhm. waaye nag sutura la ndax saa yu nekk rek macha allah rabbi su nit tolloo ci jamono yooyu sutura la laaj Mm-hmm. rawat na bu tey bii nag mm-hmm. incha allah rabbi nekk doyatina waal torop torop waaye nag nuyu nañ askan gi yëpp mm-hmm. sëñ Cheikh Thiam ñu ngi ko jox cër bu mat sëkk ak fu munta ne ak askan gi yëpp bàyyiñ kenn ku lim juum ah, su ko defee ah, tey li ñuy ñëw rek Moustapha doyatina waar daan na doy waar waaye doyatina waar xam naa ne askan gi yëpp ñu ngi leen ñaan ñu bokk ci lii ah, ñu kool ku ñëw seetaan wala kuy déglu ci rajo bi nanga nga kool waxtaan ak jigéen ji mm-hmm. ñii ay doom lañ ah, maanaam buñ na ay doom ñoo seen yaay ñoo seq problème bi mm-hmm. a ah, problème bi daanaka su ma yeboo problème bi yëpp seen yaay la mm-hmm. waaw léegi li xew mooy seen yaay de boroom këram maanaam papaay xale yi dafa toog wara uti li nga xam ne mooy ah, seneen soxna maanaam seet ñaareeli jabar ba mu ko defee nag seen yaay moom mu mel ni daal ku tàggook sogoom mhm. oo xale yi mhm. ñeneenti doom yu mag la am mhm. bi mu ñëwee oo leen muy doom yu jigéen ak yu góor ah bi mu leen oohee na leen dama bëgg a waxtaan ak yéen waaw est-ce que yëg ngeen seen papa li mu bëgg a def ñu ne ko yaay lu mu ne seen papa ah, daf ne day uti jabar beneen jabar maanaam dafa bëgg weer boppam ci kanam doom yim jur moom yaay mm-hmm. mu ne seen papa dafa bëgg weer boppam waaw te loolu duma ko nangu mm-hmm. ndax seen papa ñu jéggal ma ci kàddu yi waaye pour mu leer seen papa mënatul mën a mën a la tut jigéen dara maanaam nekkatut góor mm-hmm. man miy jabaram maa ko mën a wax waxut ko kenn ndax ay doomam yim jur lii la wax ci ci kanam yi li nga xam ne mooy xale yi nga xam ne moo leen jur Ah, mu nekk loo xam ne nii beneen doom bu góor bi jog na ko yaay ñaan naa la ngir yàlla bul eggali kàddu go suma yaay yàq nga suñ àdduna mm-hmm. kàddu yi nga wax tey dóor ma bale fetal moo ma ko gënal mm-hmm. beneen doomam bu jigéen ñoom ñëpp ñu jog ne yaay lii lan moo ko jar mm-hmm. yaay ñun bëgg nañ doo doomi baay waaw mu ne xanaa déggu leen fi may wax ñu ne ko ñaan nañ la bul eggaat foofu mu ne déedéet foog ma wax leen su doom képp ngeen ci man may seen kilifa mu ñu ne ko kon nga waxe ko neneen mm-hmm. waaye baat bi ñu wax nii mm-hmm. duñ ko mos a fàtte ba sàngoo suuf mm-hmm. waaw suñ pàppa moom lañ am dara mënatul koy jiitu ci ñun ak kilifa bu munta dox nga ñëw oo oh, waxu la dara ci suñuy nopp ndax dañuy wax baat boobu ndax ñun duñ ci jaaraat yaay adduna bi amut amut amut maanaam yàggut amut solo kii ñëw yàlla bind na bu yàgg mhm. bu dee dina ñëw ak bu ñëwut mhm. waaye la yàlla bind bind na ko mhm. suma yaay tee nga bàyyi suma papa ci jàmm yow am nga doom ba pare ñun nekkatuñ xale yoo xam ne nii xam nañ lu baax ak lu bon xam nañ fu ñuy jaar doom aadama xam nañ nu ñuy oytoo doom aadama xam nañ nu ñuy waxee ak doom aadama waaw ndax boo demee ba nga xam ne am nga jabar mhm. yaakaar naa kon la yaay xamoon doom xam na ko mhm. la papa xamoon doom xam na ko mhm. kon nag suma yaay kàddu gi ñu ngi lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi ngeen nañu tuubal baalal leen ñu ko seen yaay jaar fu ñaaw nag ne léegi kon seen papa mooma leen gënal man mi leen jur ëmb leen juróom-ñeenti weer ngeen ñëw may wax ak yéen ñu ne ko soo ñu ëmbee juróom-ñeenti weer dëgg la <clears throat> li ña wax euh, xeer nga suñ la tampoŋee gaañu soo ñu tampoŋee ñu gaañu mm-hmm. waaye nag baat bi nga wax am na yaakaar ne beneen doom bu góor bi ki am jabar na ko mm-hmm. baat bi nga wax am naa yaakaar ne doom lañ waaye yàlla dina ànd ak ñun ci mm-hmm. euh, suñ kàddu ak suñ yéene ndax lii nga wax ñaaw na ca kanam yàlla mm-hmm. ñaaw na ci alquran ñaaw na ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yaa ñu jur mm-hmm. mënoon nga ñëw may sutura mm-hmm. dégg nga junj doy na borom xel tey mag lañ suma yaay boo ko waxee woon neneen dinañ ci waxtaan ak yow ba seet solution te mu nekk lu rafet loo xam ne kenn du ci jot waaye dëgg dëgg dëgg dëgg baat bi ñu wax dama foogoon ne suñ waxee tontu la lii danga naan maa ngi leen a jéggalu njuumte la mhm. du amaan mukk te ngeen jéggal ma ko mhm. waaye nga tegalaat ñu ci jaar fu ñaaw a ñaaw ñaaw jaar ci si eh, si suñ papaati mhm. waaw Moustapha mbir mi doy na waar léegi nag xale yi naqar bii muy baat boo xam ne seen yaay wax na leen ko duñ ko fàtte bañ demee na ko suma yaay li nga jaar dañ ñaan ngir yàlla ak yonent bi nga tuub jéggaluñu ko ñu fàtte ko ci suñuy xol donte kàddu gi duñ ko fàtte waaye maire bi jaaraat fu doy waar fu gën a ñaaw boole leen ko ak seen papa. Mhm. léegi nag xale yi ñu ne ñoom doom lañ. Mhm. waaye askan gi nga xam ne ñu ngi déglu. Mhm. muy borom xam-xami islam ñooñu nag lañ gën a soxla tey ci thème bii. ñu waa alxuraan lan la. bu fekkee seen cheikh ma Thiam mu ngi ñoo dégloo borom xam-xam yi yëpp bàyyuñ kenn. képp ku am xam-xami islam borom xel yu rafet yi itam xel mu rafet moom daanaka moo alquran ayam mhm. ndax xel moom bu rafetee kàddu rafet rek eh, ki jaaxle dina am foo ko teg foo xam ne dina fa mën a teg tànkam xale yi tey naqar bi lañ am muy mhm. ñeneenti doom kenn ki am na jabar seen yaay oo leen wax leen kàddu gu doy waar kii sëñ Moustapha eh, jërëjëf oncle Ababacar sant ak gërëm na la bu baax a a baax a baax eh, comme nuñ lay waxee saa yu nekk rek yàgg nañoo dégg wante te tamit déggati nañ. <laughs> doy na waa euh, ñu profité rek di nuyu ki nga xam ne mooy Bakary Balde nekk fële ca Bansang. Hmm. démb mun la donc euh, mu ma ko wool di la nuyu bu baax a baax a baax ñu bu baax ak waa boor boobu noonu yëpp ñi nga ne hmm. hmm. euh, man léegi-léegi dama dee tiit dama dee jaaxle. wallaahi. lu tax ma dee jaaxle mooy. man dama gom ne ñi nga xam ne ñoo ñu war a génne. léegi-léegi ñoo ñu day yóbbee ñun ndaw yi fuñ jëm. wallaahi wallaahi. because nga war a xalaat tey. Mm-hmm. Euh, yow nga sëy mm. ak sa borom kër. Mm. mu yor la yorin bu rafet. Mm. nga seyal ko si bu rafet. Mm-hmm. ba yàlla may la si ñeneenti doom. Mm-hmm. ñëpp macha allah. ku nekk a ngi nekk si lawar la nga yar leen. teg leen si yoon. ba nga xam ne dem na ñeneen yi dem nañ ba muut pour jël soxna. ñu jël soxna tey sa kër. diine moo ko jagleel ne kon war na takk ba ñeenti jabar wallaahi wallaahi wallaahi <laughs> ana yow pour nga ne loolu du am hmm. yaa yàlla te yàlla nag dafa am mbir mi mooy def hmm. te moom rek a ko hmm. saa yu mu rëddee nga effacé mu rëddaat nga effacé du ñeteel daf laa effacé mu dog a rëdda ah, loo si mun dara dara nga si mënul dara kon doomi aadama yi war nañoo mun a bàyyi lool loolu noonu bu baax a baax a suñ euh, suñu yaay bi nag euh, oncle Babacar dama gëm àdduna ko yóbbaale rek dafa juum hmm. lu tax ma dafa juum hmm. mooy hmm. tey xaaroon nañ leneen si moom lu ute nu mu ñëwee si li nga xam ne mooy doomam yi wallaahi ndaxte olof Njaay dafa ne euh, wuje du noono boo ko wërsëg rek la wallaahi wallaahi yàlla leen mboole tey su jëkkëram demee ba nga xam ne tey am na yéene gis na dara si biti muy dem si biti di foy mu am yéene bi pour takka andi si kër gi oncle Ababacar fu naa dara jënto rafet loolu noonu wallaahi wallaahi dara jënto rafet loolu noonu déedéet kon def na li nga xam ne mooy waree fam mhm. moom ki nga xam ne mooy soxna si mhm. mu waroon a gindi i njabootam mhm. war a toog waxtaan ak njabootam kooku noonu ñëw mu uuf ko boole ko si njaboot gi euh, because oncle Ababacar gis naa euh, kër boo xam ne tey tey euh, oncle Ababacar soo duggee si biir kër gi sa xol dafay fii Euh, comme simila comme programme bi nii comme euh, ki nga xam ne moom thème bi. Mhm. ak kooku noonu daanaka yëpp benn la. daanaka yëpp benn la wa kooku noonu mu ñëwee si biir kër gi. Mhm. jàppeewut euh, ki nga xam ne foofu la fa fekk. waaw ngir ne comme wujaam la. wuja daf ko mhm. jàppee ni yaay. yaay kooku jàppee ko ni doom. kër tey soo duggee kër boobu noonu mu ngi ñu ngi ni fii neema. ñu may dëgg ñu may ñu ngi neema fii fii fii soo duggee kër boobu noonu oncle Ababacar man su ma xool daf tey fee. dëgg la mooy jàmm jàmm bi nga xam ne moom la gaay seexoo kon mënoon naa demee noonu mu oo njabootam waxtaan ak ñoom mm-hmm, mm-hmm. a ah, seen papa de lii la bëgga lan moo si seen xalaat mm-hmm. mu déglu njaboot gi gars yi waxtaan boot moom mu tey ki nga xam ne moom moo war moo leen war a géndi su leen fitnalee ñooñu fan leen jëm oh. rawatina nag seen papa bi nga xam ne moo leen jur nga ekkati yéen a kaddu yi teg ko ko kaddu yu ñaaw yow leer na la ne yow li ngay wax tegoo ko fen te amut kaddu yi maanaam la doon sutura yëpp mu wax ko ci kanam yow li nga yaakaar sutura si ñaata at hmm. su nekkoon ne amaanaam sax lu amoon la sax mhm. li nga yaagaa sutura ñaata at mhm. waxoo ko mhm. tey mu dem jaral la ba nga xam ne ko war a takka soxna nga taxaw teem ne lii ak lii ak lii moo xew di sos oncle Ababacar fan naa ne comme nit ñi dañ dee fàtte ne ëllëg dañooy dee <laughs> ah, ah, te nit ñi dañooy fàtte ëllëg yàlla dinañu xisaab te doomi adama bi loo fi jëf lu nekk soo dee loola la la yàlla di àtte yàlla mu ne digganteem ak doomi adama yi moom munu si dara moom diggante ak doomi adama yi hmm. loolu la àndal hmm. euh, loolu mun na see euh, saafara hmm. wante képp li nga xam ne teg nga ko doomi adama loolu amu si dara li nga xam ne lu mu see wax foog boromam ki nga xam ne yow ko nga ko teg kooku jéegal la moom mun la see jéegal kon doomi adama bu nekk képp kuy dunda rek war ngaa mun a bàyyi xel loolu noonu bu baax a baax a baax a baax bi juum na ba fu em hmm. te tey nag euh, dinañ soxla oustaz ku mel ni oustaz Bassirou Cissé mu ñëw mu wax ñu li nga xam ne diine loolu la fa euh, loolu la fa teg si li nga xam ne loolu moo nekk suñu thème bi tey wala wala oustaz sëñ Motaar uh, uh, Basir nag time bi mu ngi ci daara ji mu ngi ci daara gi wax nga bi fekkee ne mu ngi déglu waroon naay borom xam-xam yi daal soxla nañ leen waaye borom xel yu rafet borom kàddu yu ku nekk ñu ngi xaar sa xalaat mhm. muy góor muy jigéen ngay xale mhm. ndax uh, lii mbiri xale ci mbiri mag ngi ci ñaari fànn moo fi nekk ñaari fànn mhm. waaye dafa nekk lu doy waar ndax yaay bu juree doom lam do la nekkoon sutura lu dem ci thirty years wala thirty five years séq koog sa jëkkër nga xëy sutura soosu nga uññi ko uññiwuloo ko fan lu dul ca kanami doom mhm. ah di oh. wax ak sa doom ak lu métti métti li nga mm. ne condition bi lu métti métti yaakaar na waroon ngay ànd ak sa sago wax si say kanam doom loo xam ne ëllëg incha allah rabbi boo waxee rek xale yi dinañ la mun a tontu xelalante yow ba jàmm am ñu seet ban solution la ñuy la ñuy ni ko noon xale yi daañ oo seen papa mhm. teg seen yaay waaye daal bu ma bëggumaa tontu li nga xam ne mooy thème mooy thème bi waaw ah, mu nekk li nga xam ne lu am solo la ko xoolee benn am na mhm. benn fànn bi nga xam ne moo fa nekk mhm. euh, léegi-léegi oncle Babacar wax na ko suma kàddu yu njëlbeen muy euh, waajur yi dafa am li nga xam ne comme léegi-léegi suñu amee lu leen naxar rek euh, waaxi li nga xam ne moo ne woon démba mhm. su ma nee waaki lu lu nga xam ne moo nekkoon démba mooy uñi li nga xam ne loolu la yaagaa denc mhm. te ñu ne jigéen dafa war am bàmmeelu biir dëgg la ak loo munti mer mer mer mer li nga xam ne wonoon nga ko mhm. warta mën a génnaat déedéet gor noonu lay mel wallahi wallahi euh, da ngay war a gore ba xëy de ñëpp xam ne danga nga gore ba xëy dee lan moo ko waral mooy li nga kóllëre bi nga xam ne moo nekk sa diggante ak sa borom kër ndaxte tey façon xeeti teranga bu nekk mhm. defal na la ko dëgg la ba tey yàlla may la fa lu mu la fa may mhm. tey turi seet mhm. ne dama lay takal ñaareel su waree tax nga jëf-jëf yu ñaaw ji ah képp kuy jigéen tey ku déggal li nii dina am lu ko métti te xalaat bi nekk lu doy waar te xalaat bi nekk lu doy waar yow leer na leen yow li ngay wax amut ngir lan bañ wujja rek moo tax nga sos sos bu rëy bi nii ci say kanam doom ci say kanami loolu ñaaw na ba fu ñaaw mel ni si say kanam doom uññi nga sa sutura uññi sa suturaay doo ba seen papaay doom sa pappaay doom bu baax ah la doon secret yëpp uññi nga ko uññi ko ci ñoo xam ne tey kenn ki sëy na xam li mu war a xam amaanaam su amoon sax hmm. oncle Ababacar jekkut jekkut pour nga war koo waxtaanee wala war nga war koo xalaat di ko wax sa kanami doom mhm. because tey leer na la ne mhm. sa jëkkër su demoon ba mu munatut mhm. du ko xalaat sax déedéet déedéet déedéet déedéet moom mooy njëkkaa sutural boppam loolu euh, ñu ne euh, natu la soo munoon nga dem be nga xam ne munatoo loolu yàlla rek a ko mun wallaahi wallaahi te yàlla moo ko ko teg wallaahi su munatutoon hmm? oncle Ababacar du xalaat yëf yi ñaareel dëgg la dëgg la du ko toog du musa xalaat du ko toog ba xalaat ko ne doon suturaal boppam mhm. wante turi wuja bu ki nga xam ne kooku woy euh, soxna si si biir kër gi mhm. turi wuja bu mu dégga mhm. tax na ba mu sos li nga xam ne euh, lu demee nii teg ko si ci kanami njabootam oncle Ababacar war naa mën a xalaataat bu baax a baax a baax ñu ne du añ du réer wante lu jara sóoraale la tey euh, teg na doomam yi naxar bu xam ne amul fañ fuñ koy waxe dëgg la mu nekk gàcce si ñoom mhm. mu nekk lu métti si ñoom mhm. tey soo gisee ñu am sañ-sañ bi pour war a jàkkaarloo ak ñun mhm. ñu waxtaan ko ak ñun bañ ko war a teg ñu def ko programme ah dañu am lu leen métti wallaahi wallaahi suñu amutoon lu leen métti du musa ak si fi nga xam ne comme euh, euh, foofu lañ toll mhm. mu nekk li nga xam ne lu am solo la oncle Ababacar mhm. foog naa ne képp koo xam ne yaa ñuy déglu jamono ñu toll nii mhm. euh, ñu lay ñaax nga dégloo ñoo xel nga ba ñoo dégloo xol waaw ndaxte lu ñoo waxtaanee ni doomi aadama ñoo toog di ko dunda te ñuy dunda li nga xam ne lu métti la te solution rek lañ si soxla kon ñuy ñaax képp koo xam ne kilifa diine nga wala kilifa aada nga wala borom xel yu rafet yi nga xam ne macha allah saa yu nekk oncle Ababacar moo seen fay wallaahi wallaahi ko sante yàlla bu baax Ababacar kër képp lu ñu teg si kaw taabul bii hmm. yàlla nañu andal li nga xam ne mooy solution bi wallaahi te fu may jógee mooy si ñi nga xam ne mooy suñu askan hmm. mooy ñi xam ne macha allah borom xel rafet yooyu noonu hmm. borom ñi nga xam ne nag seen xam-xam bu màcce boobu euh, ñu leen di ñaanal rek yàlla bàyyi leen seen xam-xam yooyu noonu rek si li nga xam ne du yàgg a tuuti euh, naa nga ubbi euh, li nga xam ne mooy téléphone line si ñu xaar gaay gaay ñëw ah comme ni nga ko waxee rek eh, sëñ Moustapha jërëjëf kàddu yi rafet na xalaat bi rafet na xel mm-hmm. rafet na kaar macha allah yàlla lafal la cat. allahumma ah, yaakaar naa kon dégg ngeen ko. Mm-hmm. doom yi tey am na lu leen war a advice maanaam digal leen. Mm-hmm. waaye yaay ji nga xam ne moo oo ay doomam uñu suturam yëpp yoo xam ne lim sëy yëpp uñu ne sutura bi ci benn bis ba. doom yi am lu leen métti na ko yaay kàddu yi nga wax tey àdduna dara jaru ko fi mooy comme ñi ngay gars yi doog a déglu ndax dañ war a ubbi line bi mhm. buñ ubbee line bi gars yi dinañ laajte waat bi tey mooy ñeneenti xale la macha allah dootuñ xale ndax kenn ki am na mhm. jabar mhm. ah, seen yaay moo leen oo because seen yaay jëkkëram dafa war a uti li nga xam ne mooy ah, beneen jabar ñaareeli jabar mu oo ko wax ko ko na ko nag soo gisee ma tàggu la wax dëgg yàlla euh, yàgg nañu euh, dem ci li nga xam ne rek mooy jàmm ak sutura bi ñuy nit ñi xamee sëy neexul nag waaye euh, sant naa la gërëm la waaye nag dama bëgg beneen soxna. Mm-hmm. ndax dëgg yàlla li la islaam may mooy. ba ñeenti soxna kam mën nga leen a dëkkal dëkkoo leen dundal leen oddo leen mhm. ah, lii yëpp islam ne kon mën nga koy ut loolu yëpp pour bañ islam nga dem njaalo mhm. yaakaar naa tey lii la wax soxna si soxna si nag ah, ba mu ko ko waxee mu oo ay doomam waxut jëkkëram dara ay mhm. doomam la oo ñoo xam ne kenn ki am na jabar ñeneen ñi yëpp ah, ñaar ñi jànq lañ keneen ki itam wax dëgg yàlla mën naay am jabar kenn ki am na jabar waa léegi ba mu leen ooyee rek yéen ñiy doog a déglu moo tax ñuy répéter dañ war a ñëw ubbi téléphone line bi ngeen dégg thème bi bu baax a baax mooy euh, ba mu ooyee ay doomam daf leen seen li ma leen a ooyee jàmm la seen papa dafa war a dafa bëgg a weer boppam xuññu mm-hmm. suturaam euh, ndax daf na day uti beneen jabar te seen papa nekkatut góor mënut ci jigéen dara mm-hmm. yéen ñiy déglu na maa ngi jéglu jéggalu ci kàddu waaye pour mm-hmm. mu leer ngeen xamee ko noonu Euh, seen papa dootut góor mu ngi uññi suturaam loolu la bëgg bu fi indee beneen jigéen suturaam lay uññi dootut góor doomam yi nag ba mu xelee doom ji mag ji jog na ko suma yaay baalal ma suma yaay kàddu yi nga wax nekk na kàddu yoo xam ne tey boo ma jamoon bali fetal moo ma gënal ma noppale ko moo ma gënal kàddu gi ma dégg tey ndax kàddu yi ñu dégg tey du man kenn su may rakk ah duñ ko fàtte bañ sàngoo suuf mm-hmm. suma yaay jéggaluñu ci kàddu yi nga wax seen yaay na ah léegi kon duun maa leen jur seen mm. yaay jaar fu gën a ñaaw nag ba boole ci seen papa waaw ci mbiri wujj rek mm. ndax wujj jar na lii jaru ko ak seen yaay uñu sutural gëm uñu suturaam ah, jëkkëram ci kanami doomam tey ay doomam lépp lu doon sutura ci mbiri sëy boo xam ne jaaroon na ci digganteem ak soxna si ay doomam xam nañ ko ay doomam nag fu ne nii seen dund bi saful leen dara xale yi ñoo fi indi seen problème bii léegi lan ngeen a digal yaay xale yi ak xale yi seen bopp fu ne ni jaxasoo gën jaxasoo waaye lam seen papa xale yi ànduñ ci ah, yaakaar naa bu jaaroon beneen solution rek incha allah rabbi Ah, waxtaan doon na fa jógee ba ah, ni ko rek jàmm dina am. Mm. Ah, kon Moustapha Ndiaye ubbil téléphone line bi Star FM radio ak Star TV la yéen ñiy seetaan ak yéen ñi ñooy dégloo rajo bi Katong ba koy na ak ci Sénégal foo leen mun a nekk lii tey mooy thème bi ñu ngi ñaan ngeen ñëw dugg si dimbale xale yi waaye seen yaay ji neen lan ngeen ko war a digal. borom xam-xami islam yeeg ñëpp ñu ngi leen a xaar borom kàddu yu rafet yi kon Moustapha Ndiaye mun ngay ubbi téléphone euh, live bu rajo bi ak bu télévision bi euh, incha allah jërëjëf oncle Ababacar euh, képp ko xam ne rek bëgg ngaa participer si li nga xam ne mooy mm-hmm. programme bi mun ngaa call si 7 886966 7886966 900966 900966 77 000 five four. waaw boobu mooy télévision bi mooy télévision bi. Euh, seven seven triple zero five four mooy télé bi wala euh, five one triple zero five four loolu mooy télé bi. Hmm. wala seven eight eight six nine six six nine thousand nine six six loolu mooy number li nga xam ne mooy. Euh, rajo bi hmm. képp koo xam ne rek ak foo mun ti nekk rek ñu ngi ñaax képp koo xam ne yaa ñuy déglu. Hmm. nga dégloo ñoo xel ba ñoo dégloo xool. ndaxte jamono ñu toll ni foog na am na ku nekk ci line bi. Euh, ok kooku ñëwaagul euh, oncle Ababacar euh, mu mm-hmm. nekk li nga xam ne lu am solo. allo allo asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaw. Aliou dem na nga jox ñu keneen rek Aliou. ok. ok kon xam naa ne Lamine Mbeng boo ñuy déglu rek wala Bas wala Samsidine euh, mun ngeen a ñëw cegal ñu fii rek jégal ñu baax a baax ci mbiri téléphone yi incha allah rabbi euh, ñu ñaan seen technicien yi rek ñu ñëw jàppale ñu fii Euh, ñu ngi nuyuwaat Mister Ba bu baax a baax am naa moom ndax dina wut seet nag ndax am <laughs> ah ok la maa xare waaw suma waay la soxnaam suma waay la. <laughs> Mister Ba daal foog naa ne fu mu nekk nii daal bu ñu ko jàpp daal ah, foogu may <laughs> ngi ñaan yéen ñi ci line bi mun ngeen a ñëwaat ba tey ci 788. 696 9096. waaw 788 696. 9096 mooy nombre bi nga xam ne moom ngay mun a call. Mm-hmm. waaw ah, pour mun a participer ci li nga xam ne mooy programme Euh, numba télé yi nag muy 77 000 54. 77 000 54 51. allo amiin Kola allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi Cheikh. jërëjëf jërëjëf bi. voilà dinañ ñu demee. li ngeen joxe baax na trop. dëgg la dëgg la. sëñ bi am na solo lool. Mm-hmm. Mm-hmm. nekkul ne caaga nekkul ne caaga xeerar. allahu akbar. ndax dama yaakaar ne su góor gi nelaw dund. ku ne du uti jabar uti beneen jabar. dëgg la dëgg la. fii rek moo lu kenn mën yéen ñi kenn yow bu nga sax bay am ñaar ñaari jabar. Hmm. bu nga sax am ñaari jabar. Hmm. bu nga sax am ñaari jabar. Hmm. Ah. te bu nga sax am ñaari yow foo ko wéer. doy na waar. fan nga ko wéer. wallahi wallahi wallahi te yàlla moo ñu ko sas. te ne sas yàlla yi da nga koy bay yow benn jeex nga yàq ko. ndeysaan te sa sas bopp. doo am bi nga bu doo am addina doo am alaaxira. allahu akbar allahu akbar. donc yooyu tey. bi ñoo xoolee seen yaay. ñoo leen koo xoolee. dafa yàq sa àddina. wallaahi ndeysaan. doomu adama ku nekk war ngaa bàyyi sa xel nga moom. ceeb ceeb ko. ceeb ko jël ceeb nga ne kooku jot. nga yàq cëri kooku yàq cëri yàq nga yàq nga tabax ba tabax nga ko ba taxaw. Mm-hmm. nga daaneel lépp ci foo andi sol bi. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. doom bu jigéen war na dégg ci bàyyi rek. ak ci dugal. Mm-hmm. Mm-hmm. ndeysaan léegi def moom bee boo wala wala def leen def taati ne seen doom yi. wallaahi ndeysaan. loolu la waroon a def. waaye kii day dugub baaxul te islam nangu ko islam di ko dimbali. te su ma mujj xam ko ne. ndeysaan wallahi dëgg la. fo fooy ko fooy koolee papa. lu bari lu gën a bari loolu mu ngi dox papa. ah alaaji Baboucar Mbow jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah Mbow. amiin amiin amiin allahumma amin allahumma amin amin amin amin amin jërëjëf jërëjëf papa mbaw mm-hmm. mbaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf alaaji jërëjëf jërëjëf macha allah ñu sant suñ papa jooju gërëm ko bu baax a baax mm-hmm. mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak yéen TV ak li nga xam ne mooy Star FM radio ah, programme la ci kër gi ak seen waaye Ababacar Cissé jàkkaarloo ak sëñ Moustapha Ndiaye ñu jëlaat ñi ci line bi Moustapha jëlal ko asalaamaaleykum yaa booy maaleykum biir kër gi Moustapha naa la di fay naa la Adama Adama fay maa alhamdulilah sant yàlla bu baax mhm, mu wax rek mhm. dañooy toppaat mhm. ah ndaw si fii te defe naa li mu def loolu waru koy def. man ndaw soo ko moom programme bi am na lu ma si raw nag waaye am na lu ma si xaw parce que dama jéemoon. ah ok ok waaye nag ndaw bi su fekkee ne ah li mu def doom yi noonu li mu def teg doom yi wax leen wax bu ñaaw boobu dafa war a toog oo dajale doom yi ci kër yëpp mu jégalu. parce que nit ki nekkul ne xam yëpp wax yëpp yow loo meer meer waru laa tax ngay dem di suñu sa boobu ci dara. wallaahi. loolu dafa ñaaw trop. dëgg la. te doom yooyu bu ko def tamit neexul doom yi bu nekkee ne ana doom yi dina yooyu doom yi comme tasaaroo mm-hmm, mm-hmm. te ñëpp a ngi amee ay naxaar wallaahi wallaahi léegi lan moo ko waral seen yaay moo ko def mm-hmm. seen yaay ne dagale waat doom yi yëpp dagale waat borom këram mu toog mu jéggulu te ñun jigéen ñi ne war a bàyyi suñu xel xam ne fii baaxul pour sañ naa am ñeenti jabar <laughs> waaw hmm, la dëgg la. macha allah jërëjëf waaw dinañ ko répétaat incha allah dinañ ko répétaat. Euh, jërëjëf euh, kooku mooy Adama Sylla Faye moom itam euh, koolee foofu ca biir kàmm mhm. mbokk yi ba tey rek ñu ngi leen a xaar ci téléphone bi xaj na bu ñu ko waxtu mayee rek dañ ko répéter ngeen dégg ko bu baax a baax a baax ba tey rek ñu ngi ànd ak yéen Star TV ak Star FM radio mhm. programme di ci kër gi ak seen waay Ababacar Cissé sëñ Moustapha Ndiaye Maimouna Diouf tey nag loxo yee jàpp moo tax gisu leen ko tey mhm. déggu leen ko ba tey rek euh, Moustapha mun nañu ànd ak gars yi ci 788 696 9966 788 696 9966 wala 77 triple 0 54 77 triple 0 54 mm-hmm. wala 51 triple 0 five four loolu mooy nombre télé bi képp koo xam ne rek yaa ñuy déglu nga ba ñoo dégloo xool mm-hmm. euh, dégloo ñu xel xam ne ne comme lu ñoo waxtaanee ni nekk na li nga xam ne comme lu doomi aadama nekk di dunda la mm-hmm. te am na solo trop pour ñu xelal leen li nga xam ne comme euh, loolu la ñu a def di santa suñu yaay bu génn nii ne kooku di mama Adama mm-hmm, xam ne moo toog ca Ibo Town mooy alaaji boobu euh, suñu papa boo xam ne macha allah naw lañ ko torop ndaxte dañ lay tasee jumaa bi foofu noonu ca Ibo Town bu baax a baax ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax donc la jërëjëf euh, comme ni nga ko waxee rek mbokk yi ñu ngi leen a ñaan rek ba tey rek euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo bi ak di seetaan télévision bi. allo salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ah sëñ Sow. naam. Mhm. ziar. jërëjëf Sow fee nañ nañ la Sow. amiin amiin amiin allahumma amiin topic bi déglu naa <laughs> jërëjëf Sow jërëjëf Sow jërëjëf Sow jërëjëf ah, hmm. waaw taw bi dëgg la dëgg la hmm. jërëjëf Sow jërëjëf Sow jërëjëf Sow kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax soow Sow Sow Ah, kooku mooy ah, monsieur Sow Kaanuma laay koolee waaw ah, mu ne taw bi bëri na foofu torop mhm. ba tey rek ñu ngi ànd yéen ci 788 69 66 incha allah yaakaar naa Aliou jox ñu keneen bi allo asalaamaaleykum Aliou waaleykum salaam sëñ bi dalal la jaama naam fee nañ la sëñ bi waaw taalibe baj baj samba <laughs> jërëjëf taalibe Baye jërëjëf hmm. jërëjëf ah, ah suma nomba waaw waaw jëlal seven three seven three déedéet seven three rek la waaw two six six two five zero two five zero zéro waaw waaw. waaw. ñu doog a dugg programme bi. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nga man pour mm-hmm. man te it ñoom ñooy nekk ci kër waaye moom ngay xëy rek oh. oh taalibe baj uh, dog na waaye taali xam naa network bee sant Camara. <laughs> Ah, wala waaw wala Touré wala Mbaye <laughs> waaw wala Dramé. 678 696 69966. waaleykum salaam waaleykum salaam. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullah Ismaila Diallo Bakaw jërëjëf Diallo jërëjëf jërëjëf ah. waaw kon aara ñu ñëw tënk ko rek incha baax na jërëjëf Moustapha foog ñu tënk ko ci lu gaaw a gaaw Euh, kii benn euh, jigéen la euh, mhm. maanaam jëkkër ji dafa bëgg uti ñaari jabar waaye jëkkër ji am na ngor pour oo ko wax ko ne dafa bëgg ut ñaari jabar mhm. ba mu ko ko waxee nag moom soxna si waxu jëkkër ji dara ay doomam la oo ñu ñëw doom yi nag kenn ki moom moom soxna ci doom yi kenn ki mhm. am na jabar ñeneen ñi mag lañ ñaari jigéen ak ñaari góor la am su ko defee ba mu leen ooyee moom seen yaay na leen ah seen papa de démb wax na ma ne dafa bëgg ut ñaari jabar waaye ma xamal leen yéen ñiy doomam pour ngeen jàppale ma seen pappa dafa bëgg a uññi suturaam ndax seen pappa nekkatul góor ndax loolu doom joo jur koo xam ne dem na ba am jabar ñeneen ñi muta sëy waxu la leen dara yow sa seen yaay Ah, ba mu leen waxee loolu dañ ko gàttal rek romb na loolu pour mm-hmm. nga junj doy na borom xel mm-hmm. ah, mu ne leen seen papa dafa bëgg uññi suturaam ndax mm-hmm. seen papa nekkatut góor suturaam lay uññi waaw bu demee uti beneen jabar itam dina uññi suturaam ndax seen papa dootut góor ma jégalu man ci kàddu yi bu dee am na nu ngeen ko gisee waaye pour mu leer rek ngeen xam naka la demee ah, bi mu leen waxee loolu taaw bi jog ki am jabar na ko suma yaay mun na naam mu ne ko wax nga ñu baat boo xam ne bañ sàngoo suuf Mm-hmm. duñ ko mos a fàtte mm-hmm. su ma yaay baat bi nga ñu wax dóor ñu bali fetal ñu dee noppale ko ci àdduna moo gën baat bi ñu wax ñi mm-hmm. ndax liñ dégg tey bii baat duñ ko fàtte ba xëy sàngoo suuf ndax dafa xóot uñu ne seen sutura papa ñu na suturaam xam nga su fekkoon ne lu am la sax foog naa ne waroon naa am uh, jaar ak ñoom ci beneen uh, kàddu boo xam ne ay doomam dana ko waxtaan ak ñoom su ko defee doom yi dinañ mën a waxtaan ak moom oo seen yaay seen papa yaakaar naa. Mhm. Eh, ñu waxtaanee ko solution bi ba jàmm am. Mhm. waaye kàddu yi mu leen wax uñu na sutura seen papa ci gàttal daal. dañ ko gàttal nag romb na lii de. waaye junj doy na borom xel ndax waxtu bi li des bëriwut ba tey 788 la. 696 waaw 696 9966. allo salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaw sant yàlla sëñ bi. ñu ngi ci jàmm fooy koole. alhamdulilah waaw maa ngi lay déglu. fooy koole. maa ngi solo. jërëjëf. Mm-hmm. ñu bëri mm-hmm. mm-hmm. wax nañ ci jàngatee. noonu. Mm. waaw wax bi na <laughs> doy na waar. parce que boo xoolee am na lu ñu doon muñ di ko tuddee te wax amul. Mm-hmm. kon man su ma gisee man wax amul wala ñaareel bee moo indi problème boobu. dëgg la mm-hmm. dëgg la dëgg la. te ku ci nekk ki nga xam ne moo taxaw ni man damay wuti ñaareel. moom am na nekk ci boppam. Mm-hmm, xanaa nit yow doo xam ne teewaat bi mooy tax nga da ngaa dem di takk geneen jabar. déedéet. waaw loolu man sama gis-gis daal bu itin bu nekkee dëgg la sax waru ko wax. dëgg la mhm. dëgg la dëgg la. waaw mën na looy dem mu rek bàyyi na di rek sant rek su doon ñoom ñoom ñu dund si jàmm. dëgg la léegi looy wax xale yi. xale yi. waaw. Mhm. waaw li ma leen mën a wax mooy ak da ngay gëm yàlla. Mhm. waaw am na loolu boo xam ne bu la taree. waaw li ma ci xam daal moom mooy da ngay fàtte dem lu jeex mu paase rek. incha allah. waaw nit buy fàttaliku du ko sa bàyyi. waaw te yàlla li ñu am na lu ñu jàngal mooy nit moom xayru ku max sunu ku max laa xam. waaw. ci gën ci yéen mooy ci gën a rafet jikko. dëgg la. Mm-hmm. te xool day xooma comme ni ñu mm-hmm. Mm-hmm. di xoomaagee. ci leen xuloo ba tax tëjee ku may daal di fàtte rek mooy gën a wàcc doon ku max si gën mawt. loolu moom boo ko tolloo jàngal alquran rek tey fàttaliku dee lu bëri yàlla na lu sutural. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw waaye yaay góor gi nag moom maa ngi wax doon man wax dëgg yàlla ànduma ci kàddu googu. dëgg la dëgg la. waaw wax nga dëgg wax nga dëgg tudd nga ne. waaw wax kàddu gi rafet na te nga teg ko ci diina. jërëjëf waay maa jërëjëf jërëjëf yaa baax ya baax jërëjëf. Ah, ñu sant ko gërëm ko dégg na thème bi ndég bëgg rek dimbale ah, askan gi mm-hmm. mu ne dafa paak nii leen dégg programme bi mu am solo mu kool Ah, ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax pour ma yokkal leen si rek ah, wax naa leen ne ah, doom yi dañ jàllal bekku nag suma yaay kàddu yi ñu wax ñu ngi lay ñaan nga tuub mhm. tuubal ñu ndax kàddu yi nekk na loo xam ne baat bi duñ ko fàtte ba faw mhm. seen yaay nag ba ko xale yi waxee na ko tuubal kàddu gi nga wax ci suñ kanam mu jaaraat fu gën a ñaaw boole ci seen papa kon na ngeen ko noonu rek. Euh, kon mer jàppa ko rek. Euh, mu yokk si leneen li nga xam ne comme. waaw because lu mu expliqué woon ne oncle Babacar mooy ne xale yi dañ ko ñëw fekkasi. Mm-hmm. te loolu euh, ñuy ñaxaat xale yi rek. Mm-hmm. di ñaxaat seen papa rek comme si yar bu ñu leen teg. Mm-hmm. because daf leen teg si yoon. dégga ak déggu mm-hmm. moo tax xale yi ñoo ànd ak li nga xam ne seen yaay euh, loolu la foofu la leen bëgg a yóbbee dëgg la moo tax euh, ñu dee wax ne comme léegi-léegi euh, doom nawle la mm-hmm. te yaay nawle la te mm-hmm. waajur nawle la soo leen yaree si diine dégga ak déggu oncle Ababacar ak lu mu mun di métti métti métti métti soo dañ de bañ taxaw tem gis dégga ñu nangu ne comme lii mooy dégga te taxaw si tem lii moo tax ñu dee wax ne saa yu nekka doom boo jur bu nekka teg ko si diine mhm, mhm. su ko duggee rek mhm. saa yoo ko buggee yóbbu fu dul feneen fu mu war a jëm dafay taxaw tem ñoo la fii du yoon bi fii mooy yoon bi ko ñuy santa pa bi bu baax a baax a baax baax si yarin boobu noonu euh, ba tey li ñu waxtu li ñu dese ci waxtu bëriwut waa ñu ngi leen a ñaan ngeen kool sañ Cheikh daal jamono ñi daay nelaw ah sëñ Cheikh Thiam asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum eh, jërëjëf fooy koole papa. maa ngi koolee Bako. ah. Basuur. Bakote Bakote. ah Bakote ok. Hmm. ndeysaan ndeysaan waaw dëgg la dëgg la. waaw ah, waaye léegi comme moom wax boo mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. mm. wallahi wallahi ndeysaan macha ndeysaan macha dëgg la macha allah ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax oh, dëgg la amin allahuma amin allahuma amin amin euh, jërëjëf jërëjëf kontaan si moom bu baax a baax ñu sant ko gërëm ko yaakaar naa keneen ak ci line bi rek euh, Aliou soo ko mun a jël rek ba tey ñu ngi ànd ak gars yi ci 788 6966 allo asalaamaaleykum Moustapha jëlal ko waaw kay taalibe Badj bisimilah waaw kon li ñu doon waxtaan ah. Mm-hmm. jigéen bi ci boppam. Mm-hmm. xëy na naxam moo mm-hmm. mu indi njuumte yooyu. waaye nag mu indi njuumte njuumte njuumte. dafa war a delloo xelam ci yàlla. dañ ne tey ñu liggéey sa jëkkër. waaw yëkkat sa yëkkat sa doom. muy dëgg. te loolu yal nañ ci yàlla musal. amiin yaa rabbal te jigéen ñi seen boppam. Mm-hmm. am na ñu ndam ci yàlla de. Mm-hmm. macha allah te yàlla ñoom la gën a jox doole. Mm-hmm. dëgg la. waaye kon bu ñu yaaxal seen boppam. léegi jigéen man pour jigéen dugg àjjana moo gën a gaaw ci góor dugg àjjana. wallaahi ndeysaan. du ko son li koy duggal àjjana. ñu ngi ci jëkkëram. wallaahi dëgg la. ak dëkkandoo yi ak am di ko doxalee comme ni ko yàlla waxee leer na. dëgg la waaye ñawtee mm-hmm. mm-hmm. wax ci ñaw mm-hmm. dafa ko génn ci génn yi te loolu dañ ko war a a wallahi wallahi wallahi suñu yaay yi lañu nag ñoo dañ ko a xoolaat bu baax la wallahi wallahi wallahi billahi wallahi ñu soppi jikko la. jël mbir yëpp sànni ko leen. kontaan maa gën a kontaan. taalibe ba kontaan nañ ñun ñëpp. kontaan naa. nañ bu baax a baax a baax a baax. Ah, ñu sant ko gërëm ko Talibe Badji rek mhm. ñu ngi koy sant di gërëm wax dëgg yàlla programme yu nekk rek daf dee contribuer Ismaila Diallo Bakaw nag waroon naa ñëwaat moom it borom xam-xam la macha allah ah, papam al imam la Bakaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mhm. ah, sañ Cheikh moom jamono ji macha allah daal xam naa loxo yaa ngi jàppu mhm. kon ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi ba tey rek xam na suñu amee waaw hello asalaamaaleykum sëñ bi dalal la jaama sant yàlla sant yàlla bu baax. koy koolee. maa ngi koolee ci Saron. ok bisimilah. waaw kon de naa ok. waaw dégg bi ñu def loolu waaye ma dégg. Mm-hmm. wala moo naqari man na xam loolu moo tax mm-hmm. Mm-hmm. nag koo Hmm. ok jërëjëf lan ngay wax ah, li nga xam ne mooy doom yi. ah. lan ngay advice li nga xam ne mooy doomi yi. doom yi. Mhm. fu man li ma leen di wax mooy ñoom seen boppam ñu uti nga bi ñu seen hmm. xam ne seen waajur dañu mën a mën a wax wax jooju moom. Mhm. ñoom tamit bu ñu topp seen xel ñu mën a jàpp seen boppam rek. Mhm. ñu fàttali ay yëpp a waaw man loolu laa ci ah, jërëjëf sant ak jërëjëf na la bu baax a baax a baax. Ah, ñu sant ko gërëm ko gaa yaa ngi ci line bi waaye waxtu la ñuy demee ah, waxtu bi jeex na tag signal ne time bi jeex na mm-hmm. tag mm-hmm. te gaa ñu si line bi ñuy mm-hmm. jégalu bu baax a baax a baax si ñi nga xam ne ñoo nekk ci téléphone line bi jamono ñu toll nii ñu jël bi rek hello salaamaaleykum non kooku dem na nañ tàggatoo waxtu jeex na tag ah waaw bi <laughs> bisimila jégalu bismila waaw waaw incha allah waaye na gàtta rek ñëwal. jërëjëf jërëjëf Diallo jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullah. parce que doomu adama ak lu nga mënti lu nga mënti réer. góor noo toog sam parce que amoon na beneen jigéen. Mhm. mu ne moom sëy ndax daal du moo du su xamul ah, la muy sariya mhm. mu ne moom du mu sa dem sëy. Hmm. Mhm. benn si hmm. hmm. yoon bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ne man nee naa ko ba soog ñëw nga wut a sëy. yonent bi ne ko kii di ne ko moom. sallallahu mu ne ko ne yow jigéen yow fan nga def sa boppam. da bu ne ko yaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ne ko ne man du ma nangoo sëy ba balaa maa xam lan mooy sariyay sëy yonent bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee ko sallallahu kon dina la xamal lan mooy sariya ab sëy boo demee da nga sëy sa jëkkër bu demee sa xol nga feebar ba di nu ba muy génnee sax si yaramam ba nga jël sa laal bi nga mar yaramam ba ba ba ba lifin bi det bi ak sax yëpp génn si yaramam sax mu ne comme seen lifin ni aaj san sa aaxa ino la lu lu difficile la si kaw doomi aadama dëgg la dëgg a ñëw bàyyi a salaam wa rahmatullah sëñ bi kon léegi amatul luñ cee teg nañ tàggatoo waxtu jeex na bu ah, yàgg yàgg ñu eh, gërëm Ismaila Diallo laas la bi ak ñi fi jaar yëpp ñu jox gaay rek next week mm-hmm. incha Eh, di ko jaajëfal bu baax a mm-hmm, baax a baax mm-hmm, ndaxte mm-hmm. xam-xam bi rafet na macha allah te saa yu waxee rek islam la koy teg dëgg la kon lu ñuy dénk li nga xam ne mooy suñuy waajur rek eh, nañ xam ne ñun xel bu baax a baax a baax war di mun a def saa yu nekk nañ ñuy xel mu nekk li nga xam ne lu am solo la oncle Babacar sant ak gërëm yàlla na képp koo xam eh, a sant di leen gërëm di jaajëfal nag ki ne mooy suma soxna bu baax a baax a ko kooku di Fat Samba di ko jaajëfal ak suma yumpaañ maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a caméraman yi ak contrôle room yi yëpp maa ngi mhm. jaajëfal ñëpp bàyyi ma kenn su ma limee rek jum oncle Babacar pour waxtu bi eh, jeex na jeex na ah, ñu gàttal ko fu ñu ne rek ah, jërëjëf oncle Babacar gars yi dañu may sa ay minutes waaye waxtu bi jeex na bu mhm. yàgg jërëjëf ñu ngi sant ah, Star TV mhm. caméraman yeeg dalee ko ci Mr Ba ba ci suuf yëpp bàyyuñ kenn ñu ngi gërëm itam moo Lamine Sagnang mi ñu jàppale woon ci rajo bi Star FM radio ñu ngi koy sant di ko gërëm képp ku fi jaar ak di jégalu ñu ne ci line bi mbokk yi next week incha allah ngeen bàyyi ko xel àllarba fukki waxtu yeeg benn ci suba ba fukki waxtu yeeg ñaar mhm. seen waay Ababacar Cissé Moustapha Ndiaye Maymuna Diouf tey loxo yi jàpp moo tax déggu leen ko seetaanu leen ko ñu koy sant ko gërëm incha kon next week bu soobee yàlla dinañ fi ñëwaat ngeen jàpp ma ci rajo bi ci ngoon si rek dinaa ñëwaat yéen ci yeneen programme ci Star FM radio jërë ngeen jëf waaye Star TV Star FM radio asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa